Thank you. Mayasin Fall ak soxna Faati Fall Faati Fall moom soxna bu ñu ko ku ñu xam ne Guèye Fall ca yaram ma Guèye Fall moo jur Faati Fall Faati Fall waaw Mayasin Fall bi nga xam ne mooy bàyyam ku ñuy wax Samba Takku Fall mooy bàyyam mooy bàyyam ñoom takku la dëgg xam naa ko ci moom bu dee ci wàllu leneen ak ci wàllu ay euh, melokaanam ak ay dundam ak yooyu nit ku digg doomu la woon rek <coughs> rëyul tuutiwul it ba dafa yemoon rek moom nag ci loxol papaam la nekkoon ci li ñu ci xam ci li ñu ci wax fekkewul waaye moom dañuy woon mos la génn kër loxo papaam ci ñi mujjee yor euh, baayam sax daanaka sax moom moo ko moo ko féete woo mooy ñaareelu doomam itam mooy ñaareelu doomu sëñ bi ñoo xam Amar taaw moom mu topp ci ñi ñu si des soog see topp loolu xam nañ ko yow jàmbaar la woon nag boo xam ne ci ko xam ñëpp xam ne soo ko judd yàgg li ma jot a ci lim ca mënoon ñu bari liñ ci àttanoon def ñu bari ñi ko xam xam nañ ne ñoom ñëpp dañ ko ñi ci dañ ko jëlaan ci ñeme coono mar xiif da ko ñeme woon torop torop torop euh, yooyu daal xam nañ ko ci am na yeneen ñu ci xam waaye yëpp mënuñu ko cee wax waaw daal foofu doy na ñu mën cee jàpp loolu daal leer na loolu daal leer na ci waa DSTV li ma wax nii dinaa ko wax. léegi man man am la làqu. làqu mi ngi làqu 15 août. 15 août 1986 96. 1996. 16. 96 15 août. 15 août 1996. 96 ci néew yi ma nekk. fii la keroog bi muy bopp man dong maa ne ci néeg bi ak feebaree ba sonn bi mu ci bëccëg bi lépp nga xam bi bëccëg bi bis bi mu jël bi daal ci bëccëg bi lépp nekkoon na fekk suñu daal rakam moom Tidiane Fall maam Tidiane Fall ñoo nekkoon ak moom waaye bi nga xamee ne bi la dem nañ ba ndax mi ngi faatu une heure moins dix une heure mooy dix si guddi une heure mooy dix si waaye Baye Tidiane mi ngi mi ci néeg xam na ay boor yi dix heures jëm onze heures yooyu dëgg la dëgg ci tëdd laal noonu ñu dem dëgg saal bi itam la tëddoon la gis ko man naa nekkoon moom fii ci néeg li muy faatu nii ma tiim sama kuréel bi laa ko man ba mën a maa fi yooyu baax na yooyu baax na kon baax na yoon bisu àllarba bisu àllarba ci boori bañ demee ci guddi mooy bisu yooyu ko baax na jërëjëf ñu ngi ñu sant baax a baax am na yàlla ko rek waaw baax léegi am na am ñu benn euh, koo xam ne tamit euh, bokkoon na si imam alxaji nekkoon ci kër gi tawatoon euh, am na ci kenn si ñoo xamante ne si ne maanaam bokkoon na si ñu taxawoon ci wàllu tawatam waaw ñoo ñu ni ñu déglu ko léegi moom mën na ci wax as tuuti du yàgg nag ndax leen luñ ci xamante bari loolu waaye mu tënk ko ci as tuuti ñaari minute ci tawat moom alaaji bi ak maanaam li nga xam ne jamono jooju maanaam noonu la nekkoon moom. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. yëkkatil kàddu bi tuuti. sant. waaw ah, di leen gërëm di leen sant. waaw ah. jamono yu mu tawatee dafa mel ni yéen yéen a nekkoon kër gi yéen moom yéen a nekk ndowoon eh, jamono jooju nan ngeen gisoon ak maanaam nekk na. maanaam ba kër muy mujj di làqu waaw ah, maam alaaji moom nekkoon ne booba feebare moom ah sa papa ñoom ñoo ko fi indi woon mm-hmm. ba mu wax dëgg booba ah feebar ba nekk na ba mu sonalu ko woon daal bu waax waaye bi mu demee ba mu gën a nekk mag daal la ko gën la ko ma ci jot xam naa moom wax dëgg taxul mu bari lool waaye li ma ci xam daal moom bi feebaree moom ñoom nekkoon na fi ci ñi ko doon toppatoo ci lañ bokkoon mm-hmm. ak waa kër Amar Fall mm-hmm. yaari kër yooyu ah bokk ak wali mata faal doom bi nekk fo ba keroog bi nga xam ne nag maam caan bi nekk caari bi yaayu njaga faal bi nelaw na ñu dikk fekk mu toog nii ci piliyaan bi muy bisu àll ñu ne ah bàyyi nopp mu daal na bëri ndeysaan ñu daal di koy ree ah, góor gi da xanaa li ko wax maam caan nelaw na xanaa moom la tiir mu daal toog fekkoon ko mu yor benn mango di ko lekk la lëwal jaxate moo ko indiloon mhm. ñaarul am na ko daal di tegg yoon mhm. bi bis bi delsee bi ñu demee dëj bi dem ci bañ dikkee dañ ko fekk mu commencé sonn coono yooyu mu nekk ko nekk ko ba suuru àll ba ay nit xam naa ci guddi daal man hmm. mënu ma jàpp heure waaye guddi na daal waaw jàpp ma ko hmm. bi boole ci moom bi muy moom boobu ñu taxaw ci giir gi di ko xool ni ama fekk ñu fi daal ne aci dugg lañ ci biir ñu dugg ci biir hmm. ñoom nag booba lañ daal dem tëddi suñ tëddee ba guddi na fi soxna Amar si Dieng si. Hmm. daal di may fëgg na ma caal. caal la sax moo nekkoon. waaw waaw a si Dieng fi nekk mu ne ma caal la mu ne ma ah bàyyi la ci noppalu ma ah ne bi keroog nga xam ne bi sa papa yi dellu yaa tukki sax. Hmm. keroog gunge na ko ba ci garage bi. mu daan ne ko ah mbay mbaa fàttewoo li ma la waxoon. Hmm. ko déedéet ba muy ñetti yoon mu ne ko mbay mbaa fàttewoo li ma la waxoon. mu ne ko déedéet ba muy ñetti yoon bi alxames bi delsee. sa maanaam kon daal kon maam Alaaji dafa mel ni jamono jooju waaw mi ngi nekkoon si denc euh, ci dem daal ku dem daal waaw ci ki dem doon wax kaddu yooyu ci kenn si njabootam waaw hmm. sa papa suur boobu lay dellu maa xadi faal alsaan hmm. ñu ngi tax mu naan ko mbay mbaa fàtte woon li ma la ko mën a ko ko ba ñetti yoon ñu daal di daal mel ni mu xamoon na daanaka xamoon day dem quoi xamoon day sa hmm, papa wax na ko sa na li may na ma yaa ngi dem waaye maa ngi ci boobu ñun ñi ngi taxaw ni ci oto bi ci garage mm-hmm. naka mbaa fàttewoon ma wax mu ne ko déedéet fàttewuma ko ba muy ñett yoon mm-hmm. ñu daal a koy reyee ni jullee moom mu ngàbb jubboog ndeysaan mm-hmm. dikk dugg si kër daal ah waaw alaaji dellu ma nag waaw dellu mu daal di koy ñaanal foofu man nag loolu a xam yéen ñi ci des moom témoignage am na solo ma sakaan maa ne moo koy xam ndax moo ko Bintu Njaay waaw waaw ak ñoo fa am na solo am xam nga man am na solo fa yu bëri taxul ma xam ci lu am. baax na baax na ñooñu témoignage yi am na parce que kon yow yaa fi nekkoon jamono yi toote. waaw waaw taxoon tamit dafa nekk. man sànq di faral ñu laaj rek boo ko defee maanaam yow li nga xam si. waaw jamono ji fi nekk fii si kër gi ndax boobu yaa xam ne yow yéen yow yaa fi nekkoon. ak yéen soxna yi fi nekkoon. waaw ñu fi nekkoon kon jërëjëf baax na yàlla te am yërmaande ci xale wax dëgg yàlla boobu nangul gën ko ne jooy. xale bu jooy lu mu feebar feebar bu gën a jooy mu jóg na la caala lu muy jooy wala moo xat lu muy il faut mu laaj xale bi lu muy jooy rek nga door ko wax mu ñor ndeysaan boo ko joxee lekk dana woo xale yi jox leen loolu commencé góor gu am yërmande la daal. dal na yàlla sama borom ba xaaral àjjana incha allah na ko àllaxiraam dàqal àdduna yàlla kaas ñu ci barkeem incha allah njaboot gi fi bàyyi yàlla bàyyi leen ba ca kanam la kanam sa géer yàlla bàyyi leen ba ca kanam la kanam yàlla yokk xéwal yu guddal fan yi jërëjëf baax salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen waa groupe bi di leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di kontaan lool ci lii ngeen defal Maam Alaaji Maam Alaaji nag wax dëgg yàlla wax ci moom man jafe na ma trop ndax damaa gën a ndaw ci njabootam xanaa ñi ma ci mag bëriwul waaye nag li ma ci xam ci tuuti Maam moom ku nangoo woon a jaamu yàlla la ku mën a jàngale nangu bëggoon a jàngale alxuraan la. ñun li ñu xamagus nii moo ñu ko jàngal ku nangoo liggéey la bëgg liggéey trop ku mën a yar ak njabootam la loolu xam naa ko ci moom jàng nangoo jaamu yàlla jàng alxuraan ak liggéey ak yar njabootam loolu xam naa ko ci maam ëllëg ji ci li ma ci xam dëgg yàlla ndax damaa gën a nekk ndaw ci njabootam li ma ci xam li ma ci xamagus néew wax lépp sax waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla rek. yal na yàlla fayal na ko ci barke yonent bi yal na yàlla yéey ko ca barsàq suñu maam Serigne Babacar si wanale ko woy juróom wa njabootam yi fi bàyyi lim leen bàyyeel suñu xooyee yal na yàlla xiir ñu suñu di ci nekk ndax moom ku mu yar danga danga boo doxee tuut danga xam ne ku mën a yar njaboot la wax dëgg yàlla bëgguma cee sori daal itam di wax loo xam ne day doy waar waaye maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yoon Fall Rokhaya Fall Penda Fall Jello xanaa ji mooy ñaareelu Jibril mooy ñaareelu Samba Tako Fall ana ana kuy sama kuy sama. moom Alaji Faal Alaji Faal waxuma sama am dëkk bëri sama am bu jigéen laa wax. Fatou maam Fatou Gora Fall jur Fatou Mbaye nga de ko Thiane Diop nga koy nuyu ci Ndakaaru Fatou Gora Thiane Diop lay nuyu doomi Roqay Fall ak Pène ak ak Mama Yacine Fall Mama Yacine Fall ki nga ñëw tàkko. ah Mama Yacine Fall lu gën a tàkko. ah du ma lekk bàyyam. Samba tàkko Fall Samba tàkko Fall moom lu gën a tàkko waaw. daa woon ñëw fekk ndoom ak tànk bàyyam. ci Kajoor bu ñu xëccoo ndoom ak tànk mu ne moom taalibe la moom du xëccoo ndoom ak tànk. nga saagam ànd ki taalibe bi dox dox ba ñëw tàkko te ba sax bari bi mooy fan. parce mhm. fan ñu ne ko ku ko moom mu ne ko waa loolu la nga mu mu dëkk takk takk takk kii nu mu tudd maami ka nekkoon tàkk fee maami Anta Jaba Fall nu mu tudd ki jur baay Anta Jaba Fall Aliou Fall waaw yaa ngi may dégg kooku la maam Samba Tako aawaloo kooku la aawaloo waaw teg ci teg maam Jalle xanaa déedéet waxal ñu ngi la déglu waxal. dégg nga li ma wax Fatou Gora xam na. waaw Fatou Gora mi may waxal. xam na Fatou Gora Fall moom soxna si ma laaj. moom waaw moom soxna si ma laaj. waaw moom xam na li may wax. boo ko yóbboo dana xam li may wax. <laughs> naka Romy Roque Fall di caatam Roque Fall moom àndaloon ñëw fii te nawet fii. Ah. moo ma nga ca Ndakaaru ma nga ca Bajinaar ya. te moom Alaaji Fall moom dund moom. fekk fekk ci lu bari. bu ma saan jugee tàkko. moom Alaaji Fall moom. bu mu sanju ba tàkko ñëw ci Amar Fall kan ñaari néeg yi Amar Fall dëkkoon te wax jàkkaarloo ñoom ñii ñii ah. te ak niima ak ak ne fa voilà ah. dëkkoon voilà taxaw yow fii yow a lu bari ah, ah. ba Amar Fall jëlee saak ba ànd ak Aminata dem oto oto bu ndaw yëmbal ne dem tàkko ñetti téeméer ci poosa mu Amar al ne ko waroo woon a ñëw maa war na woo mu ko lii nag sans poche ñetti téeméer junni la damaa bëgg su ma fi jógee nga juróom ñetti fan yem fii ci tàkk ñetti fan yem fii ci tàkk juróom ñetti fan yi nekk yem ba bisu ajuma dëgg la ah? ah. kon day moom alaji ah. moom amoon ay may de aa ah moom ay may de am nay may am taalibe la taalibe la fa jàng alxuraan ba war kay eh, eh, daara kii ba allo alxuraan rek la xam yor na daal sax daa mel. ah daan na jàngale. daan na jàngale. daan na jàngale mooy lan xanaa maamam xamoo ko. Samba Takku Fall mooy maamam ma Yacine Fall la ko jur ah Amar Fall to jiitu. mu topp Amar Fall mooy taw moom Yacine moom laa jóg si topp. waaw ka nekkoon Jolof topp ca kooku nu mu tuddati sax ka nekkoon Jolof. nekkoon Jolof. waaw kooku di jàpp mu turam wala yàlla. kooku man fàttali naa waaye daan ñëw ci kër gi daan ñëw ci kër gi yéen nekk yéen. kon daal ñun ñëpp daal kii. Euh, bàyyi Anta Jama topp ca bàyyi Aliou Fall topp ca kon xam nga ne xam naa lii xam naa xam naa samay bopp. ñoo xam nga say bopp ah. xam nga say bopp maa ngi leen di nuyu bu baax ana ana kii Anta lay. waaw mi ngi moom mi ngi dund wala dee na. waaw ñu ne ma Mor Ndiaye boog ma ma bëggoon a takk ma ñu ne ma Mor Ndiaye. Thank you. mam Alaaji Fall mi nga xam ne moom la ñu waxtaane tey ñun ñëpp xam nañ ko mooy sunu maam ah saahiran wa baatinan njaboote woon ñëpp ni nga xamante ne bi noonu la meloon ci tàkku paleen mag ñëpp àndandoo nañ wax ne maanaam ku mel ne moom mënatul am maa ngi dégg ci sama man alin Fall mu ne maanaam ni nga xam ne noonu la meloon demoon na ba bu daan béy fi mu taxaw buy taw foofa lay taxaw ba boo xamante ni bi sébét na bu fa jógee boo ñëwee da ngay gis ni nga xamante ne bii noonu euh, tànkam yi fi mu commencé waat liggéey noonu ngay gis te itam noonu la meloon ci yoonu Seydi Aji Malick Sy radiyallahu taala anhu ñëpp xam nañ ko mu doon kilifa ci tàkku paaleen ah xanaa nag suñu borom moom ku fi jógee rek mu teg fa keneen waaye bala faa tegaat koo xam ne mel na ne sama maam Alaaji defe naa ne xam naa daal mag ñi nee yombul te itam xam naa ne ñun liñ jot a xam ci dundam bariwul waaye yaakaar naa ne yombul wasalaam

Thank you.